بالتواون تواون فيها اليمن للمتيامن السلام عليكم باي علي Ndiaye maaleykum salaam euh, nga nekk wayjuru Aziz Ndiaye euh, ñuy waajal guddi gi nga xam ni mooy màggal gan ak jamono yonent bi alayhi salaatu wasalaam euh, tey lan nga ñu mën a wax ci bis bi bis bi daal mooy sant yàlla rek la ñuy def santañ yàlla bu baax di jubli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yox yàlla nañ yàgg nañ koo def yàlla nañ ko continuer yàgg bañ ko talee def boobu ay si juddoogul man naa ni man mi sax bëgg ko samaay def booba bu ma bu ndaw ndax 1923 ba léegi la sama baay commencé def boobu juddooguma yàlla def na ñu koy def ba nëgën at mën nañ yokk ko at mën di ko yokk ba asi ñëw gën koo yokk def ko bu ñu doon def fukk def na ko téeméer kon ñoo ngi sant yàlla bu baax di ko gërëm di leen gërëm yéen ñëpp di fa ñu yàgg koo def loolu daal moo ci suñu wax. nga eh, dem tey jii sa sa waajur daan ko def nga dem ba def ko nga dem tey jii ba sa doom uutu la di ko def tey jii ban yëg-yëg nga am ak ban seede nga nu mën a seedeel ci Aziz Ndiaye. waaw mooy man maa ko jur xam nga nit moom mënta seede doomam lu baax. parce que Saatu mën na wal ba mat na wal boppam waaye nag Asili xale bu baax la ay magam baax lañu ay rakkam baax nañu topp nañ ci man déggal nañ ma li ma doon def ma ñëwee dañ koo ful ci lépp lu mu doon dañ koo ful waaw dañ koo yokk rek lépp lu ma naan def dañ koo yokk yokk nañ ci ful bare bare bare bare mu nekk mu nekk ndaw tamit dëgg ma at ci kanam lan nga koy digal mu continuer la ci li mu nekk rek liggéey ak jaamu yàlla ak jàpp taraxe bu mu nekk bu baax sàkk lu baax ci kër Seydil Hadji Malick Seydil Hadji Malick fonkoon gàmm trop ba tax na ñun ay taalibeem su gàmmu jub see rek dañuy def lépp lu ñu mën ngir lu bëggal Seydil Hadji Malick ak njabootam rawatina suñu sëriñ sëñ Abdou Aziz Al Amin loolu moo tax su gàmmu jotee rek lépp lu ñu jàppoon dañ koy bàyyi gàmmu ci la ñuy jël congé ci la ñuy arrêté presque suñu liggéey bu weer bi teroo moom suñu activité yëpp ci gàmmu lañ koy concentré. bii non gàmmu kenn xamul ñaata édition la parce que ñun dañu judd suñu waajur sax dafa judd fekk suñu maam daan ko def bu gàmmu jotee mu jël gàmmu def ko muy activité am suñu papa la même chose ñun ak suñuy frère ak suñuy mag suñuy rak ñun ñëpp njaboot gi yëpp bu gàmmu jotee tam ah, dañ koy jël def ko suñu activité rek nga xam ni vraiment activité bu am doole la ci ñun activité boo xam ni euh, bu très forte la vraiment moo xam bu gàmmu jotee daal gàmmu mooy gàmmu quoi. ginnaaw ndam li nga am ndax li sëñ Moustapha wax toog say kanamu wéjur loolu mbégte boobu noo ko dundee. non rëy na sax ñu ni am nañ ndam ndam moom amaguñ ko ndax taalibe ngërëm rek lay sàkku ñu ñi ngi ñi ngi ñi ngi tarbiya daal di ñaan yàlla yàlla nañu yàlla nangul suñu taalibe li doon taalibe Cheikhouna Tidiane jafe-jafe yëpp ñu ngi ciy lu ngir yàlla nangul ñu ko ndax li ñuy def wareef la ci taalibe bu nekk mu xool luy bégal kër sëriñam lu ko yëkkati lu taxaw njabootu sëriñam loolu ci lañ nekk rek ah nekk guñ ci nekk nag dañ ciy sàkku ngërëm rek waaye wutuñu ci ngir ndamoo ko wala ngir puukaréewoo ko ngir leneen def bi ñu koy def sax ba nit ñi di ko jot wala nit ñi di ko gis sax dafa fekk ni dañ ci amoon ci ndigal ci suñu wasila rek sëñ Abdou Aziz Al Amin moo sàkk woon bu bis bi bu ñu koy def nañ ko ko indil ba mu teg ci bëtam ngir bëgg ci ngir bànneexu ci wane ni am na njaboot goo xam ni fonk na li Seydil Hadji Malick fonkoon muy gàmm moo waral sax ngeen gi suñ koy def média bi li ci jot wala keneen ndigalu sëñ Abdou lañ ci amoon ba tax nañu di ko def loolu rek moo waral ñu koy def wax dëgg yàlla. def ba tey ci ci ci saayir ci li nit ñi gis yokkute ak mbégte am na daa mel na de. yaakaar naa ni taalibe bu nekk wala jaam bu nekk liggéeyal sëriñam war na doog pas war na doon waree fam lii ñuy def dañuy dëggal suñu pas-pas rek ak yokk suñu pas te gëm naa ni liggéeyal yàlla amul tànk ginnaaw ñun de ci suñu bopp ak ci suñu wàll gëm naa ni ba ñu commencé di ko def ba léegi wax dëgg yàlla yàlla ñuy suturaal yàlla ñuy taxaw yàlla ñuy jàmm ci lépp lu mu mën a doon ba tax na du ñu deñ mukk nag di yàkkamti gàmm di jot bu ñu sañoon sax gàmm day am tous les trois mois gàmm am ngir ñu mun a liggéeyal yonent bi liggéeyal suñu maam Seydil Hadji Malick wax dëgg yàlla li ñuy def nag li ñuy faral di wax rek yàlla buñ ci gis suñu bopp def biñ ci def yàlla na lépp di yàlla yàlla na lépp nag tegu ci liggéeyal suñu maam Seydil Hadji Malick yàlla buñ ko ndamoo yàlla buñ ko bàkkoo yàlla buñ ko ngistale yàlla buñ ko wanee te yàlla buñ ci gis suñu bopp nag képp ku yaakaar ni sax dañ cee gis suñu bopp ñu ngi ñaan yàlla nga ñaanal ñu ba yàlla buñ ci gis suñu bopp yàlla na lépp di jëfi yàlla rek subhaanahu wa taala ah. amin am nañ mbégte ci yow kon ñu kontaan ci yow waa fas yéene ànd ak ci gàmm gi nag toppoon nga ko ba mu jeex amin di leen sant di leen gërëm ndax lii ñuy wane sax naam dafa bokk ci ni fii communication toll nga xam ne am na ñeneen ñoo xam ne dañuy imposer une communication négative di ñu wan ñoom lañu yaakaar ni moo gën ci seen réew ba tax na ñun tam day baax léeg-léeg suñu ay ndaw réew di wane ci yenn act yi ñuy def di ko wane ni Sénégal kat yàlla def na fi ay ndaw yoo xam ni ñu ngi daw jëm ci yàlla di daw jëm ci lu baax day servir d'exemple à d'autres jeunes pour ñu mën a xam ne tey lépp lu waay di def ak lépp lu waay di dugg jéem a def lu baax moo am solo ak jëm ci yoonu yàlla. moo waral sax ñu koy wane te comme yéen a koy tasaare tam njàngale la ci bépp ndaw ci bépp jeune yàlla nañu yàlla defal jàmm te yéen tam yàlla na leen yàlla fay macha allah. alors daaw gisoon nañ la nga ne soon benn projet pour Tivaouane mën nañ ko sax méngale ak euh, Touba ca kanam boobu ba léegi déggaatuñ ci dara foo ci toll. taalibe mébét la am ak bëgg-bëgg waaye ndigal ak ndigal ak doxal kilifa moo koy def ñun ay taalibe lañ yu am ay projet am ay xalaat taalibe sañ na am xalaat waaye doxal ak jëfe moom. Euh, loolu kilifa rek moo ko sañ am nañ xalaat bi wax nañ ko ñu ngi ko war a wax ñu ngi koy jaar fi ñu ko war a jaar la ca des nag ci loxol kilifa yi la des ci loxol xalif général bi nga xam ne tey sëriñ Babacar Sy Mansour ñu koy ñaanal yal na yàlla yokk taxawaayam yal na yàlla yokk fanam ñun ay njabootam lañ ay taalibeem lañ am nañ xalaat am nañ pas-pas te am nañ yéene ñu ngi koy déglu rek bu ndigal bu mu ñu ci jox incha allah ñu doxal ko ci kàttan. ginnaaw bi nga ci waxtaanee xalifa ndax euh, am na ci yenn ci mbokki taalibe yi ci waxtaanal. man taalibe bi gën a ndaw ci taalibe yi laa man xalaat bi génn na ci suma gémmiñ waxtaan nañ ko ak ñi ñu ko war a waxtaanal ñëpp li ci des kilifa yaa ngi koy doxal nag xam nga liggéey bi moom du liggéey bu ndaw liggéey bi dañ koy commencé ci suuf mu jëm ci kaw te wax dëgg yàlla ñi ci war a liggéey ak ñi ci war a wax ñëpp ñu ngi ciy liggéey lu ci des daal heure ñu ci amee ndigal ci ki nga xam ne moo war a joxe ndigal te ñu war a déglu ndigalam ñu ngi koy déglu rek muy la xalif général mais ñun moom à notre niveau passe-passe la ñu am ak yéene ak wax la cay dogal nag nañ ko bàyyi kilifa yi rek mais ñun moom am nañ yéene am nañ pas-pas. ndax am nga yaakaar ni fii ak déwén incha allah projet boobu dinañ ko mën a metre en œuvre. taalibe amul sañ joxe ndigal. taalibe yéene la am ak pas-pas am nañ yéene am nañ pas-pas waaye itam dañu am kilifa di ko déglu rek fu ñu ni jaar leen foofu ñu jaar foofu incha allah incha allah. xool yëpp benn lieu de convergence rek la ñu am mooy Tiwaawu fii xel yum nu lil mu tey yamini benn kenn ci taalibe yi nag. di Abdoul Aziz Alé Ndiaye mi ngeen ma fekk fii ci daara ji nga xam ni résident Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam la ko tuddee jëlee ndigal li ci baayam d'abord alxaaji Alé Ndiaye mi nga xam ni euh, ba cay maamam góor gu baax Cheikh Seydou Mouhamadou Mansour borom daara ji daf daan wax naan lawoon fawoon ñawoon ay baatu olof yu tënk la waaye la muy chara bari na mooy que ni Abdoul Aziz Alé Ndiaye léegi la toog ak ay kilifam ko mel ni xaaj Masata mi nga xam mooy magam ak euh, Baye Ale ak euh, tabarakallahu njaboot gi ak staff bi nga xam ni bu weeru gàmmu jotee fu waay mën a nekk moo xam ci réew mi la wala bitim réew da nga bàyyi sa yite yëpp daw ñëw Tiwaawan ànd ak moom ci liggéey bi ndax lii Abdoul Aziz def wallahi ñu ñëpp am nañ yéene def ko waaye moom la yàlla dogal tànn ko ci suñu biir mu wuutuñu ci ñun taalibe yi wuuti ci mag ñi ay magam wuuti ci ay wéjuram maam Alima Jigéen Ndiaye léegi laa dégg al pap alxaaji Alé Ndiaye suñu wéju di nettali ci kanamu sëriñ bi ni 1922 bi nga xam ne maam Cheikh El Hadj Malick radiyallahu anhu làqu na jamono te Cheikh Seyd Aboubacar radiyallahu anhu borom ba ne kaara bi euh, jël xilaafa gi nee na boobu ba léegi tey boo ko calculer ci ay at amul benn at boo xam ni dàquwuñu ay nag ci diggante bi bas ak lu ko wër wala ci àndal te gis nga maam Alima jigéen moom ci histoire daan wax ni rus naa ñëw ti Tiwaan moom maam maam Abdou Aziz Ndiaye mii daan tubbe suuf ci dëkk ba mu dëkk indi ko fii biir Tiwaawan lal suuf ci togg ci ay ñam gàmmu jox ko nit ñi comme ni Abdou Aziz def anaat suuf si ba mu jekk yabal ko ci ay seetu mbaam yóbbaal ko ci dëkk ba ngir xormaal suufu Tiwaawan waaye ngir xormaal ki woote guddi gi te wootewu ko ngir boppam da ko woote ngir ala azimu laylal wilaati xisbatan ida lam yakun naxwa alxarami udulu kon yàlla ñu yàlla fale moom Cheikh Alhaji Malick ñu gis la fii kër Aziz Ndiaye tey ndax mën nga ñu dikkal ci ban relation nga am ak moom ba ba nga yor cellule de communication waaw Abdoul Aziz suñu xarit la euh, historique historiquement nag am na lu ñu boole Euh, roi Hassan II bi mu génnee àdduna mooy papay Mouhamed VI sahibul jalala bu mamlakal maghribiya bu mu nelawee président Abdou Diouf ci boobu jamono dafa tànn ay muqaddam ci tariqa tijaan fii ak ay euh, kilifa diine yu bari ci kër diine yi woo Pape Abdoul Aziz Al Amin mi nga xam moo nekkoon président des associations islamiques euh, ànd ak ambassadeur excellence El Hadj Moustapha Cissé bu Pire ñu ne dañuy jaale ji Hassan II koroog avion boobu ñu jëloon muy pende Sangomar di avion présidentiel sama wéyjur alaaji Cheikh Sam radiyallahu anhu nekkoon muqaddam sëñ Abdoul Aziz ca Mbour moom ci boppam ak Baye Ale wéyjur jur Aziz ñoom lañ boole woon ci vol boobu ak lu mat ñaar fukki muqaddam ak juróom-benn ñu dem nag ca saaxibu jalaala fële ca Maroc ngir présenter les condoléances officiellement au nom de la Tijaniya ndax Maroc boo ko nag xel yi dem ci Tiwaawan ndax Maroc ak Sénégal daa am leen boole waaye relation diplomatique bi am na relation politique bi am na bilatéral am na waaye relation tarixa nag moo fa privilégié moo tax korog tabarakallahu sama wajur ak Baye Alé ñoo àndoon ñuy dox nag yàlla boole ñu jamono boole ñu ci lépp Abdoul Aziz dañuy ànd fépp ci xadra bi tabarakallahu di liggéeyal maam Seydi Hadji Malick barki dem maag moom ca Italie euh, euh, weer wii passé man mii la yebaloon ca zawiya Cheikh Hadji Malick radiyallahu anhu ca New York ma dem teewal ko fa ci ay ndaje yu yoo xam ne taraka Cheikh Ahmed Tidiane ñoo ko wote tiwaawan fiiha yumnu lil muttayaa